internet Sénégal ba ba tey ñu ngi fi nga xamante ni moo di enterrement euh, Ndiaye euh, ñu taxaw see koo xamante ne nag sénégalais yëpp ku ne Ndiaye ne ki nga xamante ni moo di Kouthia euh, Kouthia ñu ngi lay jaal bu baax di la nuyu. waaw ñu ngi koy jaal Sénégal yëpp ñu koy jaal tamit internet yëpp. Mhm. ñoo ngi gunge ko ci li nga xam ne moom mooy këram gu mucc di ko ñaanal yàlla xare ko ci àddina gën a kawe. Mhm. am nañ yaakaar lool ci Ndiaye. Mhm. te xam naa ne yaakaar boobu du tas ñun. waaw ku ne Ndiaye ne Kouthia démb bi nga yëgee mbir mi naka na la def grand waaw euh, kon ni ko ñëpp di yëgee rek. Mhm. bu dara doomu aadama rawatina ngeen am relation yoo xam ne. Mhm. amu ko ñeneen. Mhm. te njaay moom boo ne njaay da nga naan njaay bu Kouthia. njaay bu Kouthia lañ xam. parce que TFM am na ay njaay yu bëri. wallaay dëgg la. il faut nga ne njaay bu Kouthia ñu xam ne kii mooy njaay bu Kouthia. donc dañu koy sant yàlla. di ñaan yàlla suñu borom bi nga xam ne. moo ko fi jëlee moo xam lu tax mu jëlee ko fi mhm. waaye yàlla njaay rëccil ci li mu doon toogee ci àdduna yàlla xare ko ci àjjana gën a kawe nit ku baax la yàlla moo ne ku bëggal doomu aadama mu bëggal la mhm. foofu ne njaay ko naatable a a a xam ne njaay mhm. <laughs> murit la tey mu ñëw ñu suul ko ci armeeru kër Seydina Limaamu Seydina Limaamu Laay mhm. Njaay dafa dellu këram dafa dellu këram ndax xam ngeen ne maam Limaamu mooy yonent bi mhm. kon tey dafa delluwaat ci yonent bi wallaay dëgg sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam waaw xaadim rasul mhm. ñëpp xam nañ ko bëgg bu mu bëgg yonent bi kii ne fii ci ñëpp xam nañ ko bëgg bu mu bëgg yonent bi kii ne fii ci Baye Laay Baye Seydi mooy mooy mooy rasulilaay kon dafa delluwaat ci rasulilaay ñu ngi koy ñaanal rasulilaay yàlla na ko teeral amiin may ko tamit euh, tawféex ci ginnaawam li yor njabootam ci ginnaawam Ndiaye daal yal na ko yàlla xar àjjana suñu xel dal na mm-hmm. tey ñu bëri xamuñoon na Ndiaye mm-hmm. ñi naan murid la ñi naan tiyaan la ñi naan laayeen la ñu bëri mënoo wax Ndiaye na ko talent boo xamante la bokk ci biir tarixe la bokk waaw mm-hmm. waaye dem na fi nga xam ne foofu ñun ñëpp tarixe yëpp kooku la ñuy wékk muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lu maam lu maam maam ñu ngi la koy jàll grand bu baax a baax a baax di ñaan yàlla na sara xam yàgg seen loxo jërëjëf nit la koo xam ne wax dëgg yàlla jullit la woon moo ëpp solo ci lépp parce que lu nu a wax te waxuñu ne jullit la woon yaakaar naa dañuy bàyyi lu bëri waaye a sedd daal mooy nit la koo xamee jullit la woon yaakaar ku bëgg a doomu aadama nit ku yaatu xol la woon kon donc lii mu am ni ak ñi ko ñëw fekk si ñëpp xolam rek la ko suñu borom fay tey ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana te malaaka meer teer waaye denc nañ ko koo xamee am nañ ci yaakaar yàlla na ko yàlla xaare loolu laa amoon ci moom ay kàddu yoo xam ne dinaa ko wax mu doon nit koo xamee man moom sama xarit la woon yàlla dogal mu doon nit koo xamee ma bëggoon trop ci audio yi may def nii dañ ci doon waxtaan mu ne man dama laa bëgg loolu nag yàlla moo koy def te cofeel bi mu am ci man bu ko raw laa amoon ci moom tey ji tey waaw yëgoon naa feebaram su ma la waxee yëguma feebaram tax euh, dama koy fekki waaye xam nga feebar moo doon loo xam ne bi la war a yóbbu bu ko réew mi yëgoon terewul boo waree dem alaakuli àll ngay dem ñun liñ ko mënal rek mooy gunge ko ñaanal ko tey bu ñu yoroon wér mu tëdd dafay jub waaye nag doomu aadama euh, jaam ak pexem mais yàlla ma ko dogal lii la yàlla dogal dañuy def lu nangu ko ndax nit bu fekkee suñu borom dogal na ak dogalam lenn rek nga mën a def lu nangu dogal te nangu na dogal di ñaan yàlla xaar ko waaw muy def ci man mooy euh, am naa ci loo xamante ne wax dëgg yàlla su ma sañoon mu toog na xajaat na fi waaye nag yàlla moom bu soxlaa jàmm nag donc li muy def ñëpp rek noonu la may def franchement wax yàlla parce que ñun ay xol lañ yor dañuy yëg am na ay. Euh, perte bu metti la pour euh, groupe Futurs Médias pour Sénégal pour bépp jullit parce que vraiment nit koo xam ne la nit ku baax la woon nit ku yaatu nit ku laabir nit ku dëggu mhm. mais nit bu vraiment bu suufeel boppam am talent. ci sax ça man de li ma koy seedal mooy at ñu liggéey yëpp musumaa gis benn yoon te sama bàmmeel laa taxaw euh, dara loo xam ne lu safaan la ci moom ko fekk mu ngi ree foo ñaaw mu jéem ko defar ba pare nekk julli donc vraiment euh, muy perte bu mel. yan moment ngeen ah, li ma mujj dund ak mooy day day mujj gi dama naan ko gis parce que su ma ko gisee amaana boobu xam naa ne xel mi ñaaw na ci ci ay rangoñ waaye mu mu dem ndax xam donc vraiment mu nekk lu métti mais mu dund ak ak feebar ak dignité aussi ak gëm yàlla ba yàlla def li nga xam ne moom gën ñu ñaanal ko vraiment nit boo xam ne li ñu ma mujj dundeek moom li ma dundeek moom yëpp dara ñaaw si lépp ci rafet parce que jiite yombul mais ci biir ñi may jiite ñëpp vraiment amoon nañ ci benn place bu am solo. ñu waaw mais mais fu mu ne pour man loolu sax loolu loolu du wax wax ji mooy nit ki moom bu génnee àdduna yàlla moom mooy jël di ko yàlla jëlee ñu ah, gunge ko ba denc ko fii nga xam ne suñu xel dal na parce que man man man laayeen laa su fekkee ni moom dafa ci dundam dafa ñaanoon pour bés ko yàlla jëlee ñu denc ko ci sama xel da ñaanal ko rek nit moom bu génnee àdduna doo xool mënoo def dara ba indiwaat du ñaan ñaanal ko rek nit moom bu génnee àdduna doo doo doo xool mënoo def dara ba indiwaat du dul ñaan ñaan la soxla nañ ko ko defal eh, leneen amul importance. lay wax ak ñëpp famille am ñëpp laay wax que ni vraiment masse parce que famille am aussi du waa kër jabaram ak waa këram rek ñun tam famille am la ñëpp a perte Sénégal yëpp moo perte parce que ñëpp seede bi yëpp benn la ci yaay parce que ci biir dundam vraiment lépp lu mu wane ñu positif la ko sa sama waa euh, maa ngi fàttaliw ma woo ko sama bureau am benn projet ak moom moo woo ko ne ko kaay sama bureau mu ñëw toog ma toog ma ne ko dama bëgg a def lii ak lii ak yow yaay jékki-jékki sëkk ma ne ko loolu sëkk nekkal mi ngi moom boo ko waxee dara balaa mu lay tontu day jooy ba pare ndax émotion rek la feesoon vraiment nit ku baax la vraiment njaay moom loolu lañ ko mën a mën a seedeel di ñaan te te du ñun rek ñoo perte euh, lenn peut lu may lu may regretter rek mooy euh, je pense que talent fi mu tolloon sax peut-être que sax mënoon na weesu fu mu nekkoon mais loolu la yàlla dogal mais vraiment nekkoon na nit boo xam ne li ñu gis ci mot ci talent ci moom sax pour man li mu amoon weesu na ko te il avait vraiment des projets mais depuis feebar bi tëddal ko vraiment mu nekk ci coono yu metti mais ànd ko ak gëm yàlla donc vraiment ñaan rek la ñu mën a def jërëjëf. Thank you.

Sénégal yëpp tey génn ànd ak moom ci li nga xamante ni moo di kër dëggam bi euh, ku xam na sa diggante ak moom ginnaaw yàlla bi mu ko jëlee yan kàddu nga ci yàlla rek julli si yorante bi di ko ñaanal yàlla fa mu jëm yàlla ko gënal fa mu jógee. Mm-hmm. Euh, nit la nit bu baax euh, lii rek teema lii rek wane na ko nit la boo xamante ne wax dëgg yàlla ku gis taxawaayam ak taxawaayu nit ñi nga xam wax dëgg yàlla def na fi lu baax nit bu baax la boo xamante fu mu nekk da reetaan mm-hmm. kon yàlla ko yàlla yërëm yërëm te yeexee ñu yàlla yàlla def jàmm si réew mi jërëjëf ñoo ngi koy jaalee ñëpp ku si nekk mën nga ko jaal sa morom ndaxte Sénégal am ñàkk yàlla yàlla def jàmm jërëjëf Seexu délégué bi ñu wax farata délégué bu gis du Sénégal nous les acteurs culturels dafa am loo xam ne dafa manqué ci ñun te il faut que nag ñu mobiliser wu ñun artistes ci pour ñu mën a gagné li nga xam moom la ñu war a mën a am ngir teel suñu waajur njaboot fulla borom moo koy may boppam Dakar koy jaay bu fekkee ni ku ñëw rek ñam bu euh, bu yàggee Dakar bi ja tàkk waaye ñun artistes comédiens yi dañu war a mobiliser wu di ma am ci kër yi am ci oto yi am ay métiers bu buñ fi jógee suñu njaboot mën a mën a nekk ci jàmm ak salaam waaye tey jii amuñu lu ñu wax kenn ndax tey jii euh, télévision yu bari ñoo ngi jël acteurs culturels yi di leen embaucher di leen fay dañ dañ leen ci remercier di leen ci sant bu baax mais li ma mën a wax daal ci gàttal mooy tey ji bés bi war na wane lu ne su ma soxla nag buñ ci jógee ñun artistes Sénégal yëpp ñu dajoo la waat waxtaan waxtaanu biir néeg comme ça génne ko ci Sénégal ñëpp xam ne artistes yi kat tey jii dañoo war a jëmbat fula nag pour am dara ci askan wi loolu daal mooy lii ma gën a ñor quoi.